tey nag euh, ñu ñëwoon pour def euh, benn déclaration mu jëm ci ñaari euh, point ba ñett bi ci njëkk mooy ñu sensibiliser les marchands ambulants ci ñu respecter les mesures et les barrières yi nga xam ni autorités yi sanitaires yi digle nañ ko ci mbirum jëmale ko ci mbas mi pour ñu mën a fexe mbas mi gaaw fi jege. ndax euh, loolu day nekk loo xam ni non seulement dinañu aar mais dina aar suñu koom-koom aar suñu barabu liggéey ndax li ñu seetlu mooy euh, ñun ñi nga xam ni ñooy marchand ambulant yi ak marchand tablier yi euh, ñooy les premiers impactés maanaam tey mesures yi nga xam ni état bi da koy jël day dal suñu kaw bu dee wàll couvre-feu day wàññi suñu liggéey ndax am na si ñoo xam ne ngoon gi lañuy liggéey waaw moo tax ñu moytu d'abord pour jéem a fexe xeexanteeg euh, feebar bi pour mu jóge fi mooy première euh, déclaration bi bi si des moom mooy loo xam ni dañ koy euh, ñaawlu di ko réclamer état pour mu jéem ko mu jéem a def réparation si nu mu gën a gaawe mooy plan de résilience bi nga xam ni président de la république euh, taxawaloon na ko bi mbas mi amee ba léegi lu ñu seetlu mooy dafa am kumba am ndey kumba amul ndey ndax dafa dañu xool ni corporation yu bëri jox nañ leen seen wàllu ci plan de résilience bi soo jëlee acteurs culturels yi jox nañ leen deux fois soo jëlee artisans yi ñu ngi leen di jox sa ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ëpp ñu yëngatu ci secteur informel ñun muy marchand ambulant yi ba léegi benn dërëm joxe joxuñu ñu ko loolu nag euh, ñaxtu woon nañ ko ca première phase euh, première vague bi bi deuxième vague bi ñëwee tamit ñu taxawaat pour jéem a interpeller président pour mu jéem a fexe nañ la ñuy rectifier loolu ndax métti na si ñun métti na si ñun suñu liggéey yi am na si yenn marché yoo xam ni déjà dindi nañ ko loolu mooy troisième point bi lu mel ni luuma yi luuma yi nga xam dañ fa doon dem di jaay dig ngeen luuma yi dindi nañ ko sa marchand ambulant yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy def commerce informel boobu ñoom ñoo ci nekk yenn marché yi lu mel ni ay asalem dindi nañ ko yenn mbedd yi nga xam ni moom la ñu nekk di lal ci Dakar Plateau ak yooyu ñi ngi nekk di ramas gars yi guddi ak bëccëg sa dara teguñu ko suñu loxo loolu nag mu nekk loo xam ni mettit la waaw loolu daal lañ bëgg euh, fexe waxtaan ko ak autorité yi lii nag dafa nekk euh, daanaka une première boo xam ni pour yëglu waaw dinañ ko interpellé président par voie écrit moo xam ne tamit lu ñu war a réparé rapide euh, vite fait la dinañ ci interpellé tamit suñu ministère du bi nga xam ne moo yor secteur informel dinañ ko ci interpellé mais daal maa ngi ñaax sama bopp di ñaax euh, képp koo xam ne yaa ngi nekk di liggéey ci mbedd mi rawatina marchand ambulant yi ak tablier yi ñu gën a moytu daal gën a farlu te xam ni loolu euh, feebar bi gaaw fi jóge dafay nekk suñu suñu suñu suñu njariñ waaw comme ni muy nekk njariñu Sénégalais yëpp.